asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci ab yonentam ñoo ngi jël kàddu yi di ko teg ci loxoy kilifa yi dëkk bi ñu tasaareel ñu ko ci tund wi yépp di nuyu autorités yi fi teew yépp ak corps yi fi teew yépp di nuyu commandant ak kilifa yi tooge baas bi yépp ca jéggulu sama kàddu gi nga xam ni maa ngi koy yëkkati ci ron sama kilifa yi waaye nag ndigal la te sëriñ bi da daan wax naan ndigal caabi la su ëppee du ubbi su du ubbi cab taalibe du ko sañ a bañ ndigal li nag mooy ñu fas yéene xamale leen ak délégation bi nga xam ni moom la sëriñ Omar Bousso yabal moom mi nga xam ni tey moo toog di xalifab sëriñ Mbàkke Buso ca bu Buso dafay mel ni sëriñ na wax na ko léegi melakaanu mbakke bu Buso ci biir kër sëriñ Touba dayob mbakke bu Buso ci biir kër sëriñ Touba na nag ay mbokkam dëkke dëkk bi muy mbokkam ci fànn gu nekk ñu bokk diine lislaam di mbokkam deret di mbokk di taalibey sëriñ Touba àqan sëriñ Mbàkke bu so nekkoon kenn ci biir kër sëriñ Touba koo xam ni moom la sëriñ Touba doyloo woon ci léppam dénk ko léppam ba jël yoonu murit teg ko ci loxo mu sancaa dugal sancaa génn kon bu fekkoon ni ab murit dafa nekkoon ci buruqam baas benn baasam di fa liggéey sëriñ Touba liggéey bu toll nii Serigne Omar bu Bousso mii xalifa mbakk bu Bousso am na sañ-sañu yebal fab délégation dafa rawati ci biir baas bii ay mbokkam dañu ko def te def ko ngir jëmmi Serigne Touba nekk fi di dundal lislaam di dundal li nga xam ni mooy ndonal seen maam ya di dundal li nga xam ne moom la leen Serigne Touba bàyyil mu di ak taalube ñu nekk ci guddi nekk ci bëccëg ba organiser organisation bu tol nii Serigne Omar nag jël délégation bu toll nii Gédé yebal ko fi ndax Serigne Omar nee na bàyyiwut benn buntu kër ci ay bokkam muy ñi mu bokkal sëriñ Touba muy ku sant Mbàkke baa ku sant Buso baa nu mu ko mën a bokkee ak yow bu sañoon ñépp lay teewal ci bis bi nee na bu sañoon tamit li war ci bis bi yépp da koy def loolu yëpp sëriñ Fallou Bousso Assane mii mu jiital ci délégation bi su ñëwee dina leeral loolu yëpp dina wax ndigal li ni ko sëriñ bi joxe ak ni mu ko ko sante pour mu jottale leen ko ndax mu ngi yebal doomam sëriñ astafurlaa na ma yàlla sunu borom boole jéggal te jéggal ñëpp rakkam moo jiite délégation muy rakk du ko déggal du ko nungul di kenn ci moom koo xam ni rakk ju neex a rakkoo la ndax lislaam a ko ñor gànna wax na ko léegi dundal xam-xam a ko ñor gànna wax na ko léegi ab jàngalekat la ci biir toolub lislaam gànna wax na ko léegi ku garder personnalité am la kon bu jiitee délégation boo xam ne moo ëmb Mbàkke ëmb Mbusoo bi ñëw représenté fi Serigne Amar Bousso mi xalifa Serigne Mbàkke Bousso moom dong bu àndoon day doy waaye da cee boole ànd ak rakkam joo xam ni melawul la limal ci Serigne Fallou rek wuli toll nee na ci moom muy Serigne Mourtala moom Serigne Baaxeer Bousso kenn ku ne xam na ni Serigne Baaxeer Serigne Touba ko yar ci loxoom. kon Serigne Mourtala Serigne Touba ko yar ci loxoom ndax ka yekk Serigne yar mooy waa juróom moo ko yar mu ngi ñuy toog ànd ci biir délégation boole ci ab taawam bi nga xam ne mat na taaw sëkk taxawu ko ca fànn gu ne doon doom joo xam ne doom ju mata doom ju mata sago waa ju waajur di sagoo doom joo xam ne day taxawu ay waa waajuram ndax dama ne seen doon ay maam yi yéen waa Mbusoobe ak Mbàkke mooy sàmm lislaam sàmm ngon sàmm diine sàmm ak taalube di dunde seenu ñaq te sëriñ Fallou Bousso mii nga mu jël boole ca délégation bi mu di taawam moom ca foofa la nekk kon sëriñ Omar bàyyiwut nit gede sëriñ bi yaa ni ñu gàttal kon maa ngi yemale foofu di jox sëriñ Fallou Bousso Assane mu jotale kàddu gi nga xam ni moom la ko sëriñ Omar Bousso yónni mii xalifab sëriñ Mbàkke Bousso cant nag munte weesu cant wax lu baax it munte weesu lu baax sëriñ Omar daal li mu ñu yónni am na tàmbali waaye amu yamukaay sëñ Fallou dina ko leeral sëriñ Fallou bisimilah. bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi fi teew bokki taalibe ak ñu dégg sunu kàddu noo ngi yëkkati sunu kàddu tàmbale ko ci nuyoo ak sant ak ziyaar nuyoo bi ak ziyaar bi dañ jiital ci alxalifatul am li muridin Cheikh Mahamadul Muntaqa ñaanal ko sunu borom yàggal ko fii te mottil ko ay naalam teg ko ci loxol doomam ji fi teew wala sëtam mu jot li ñu ko ak mboolem jabootu Seexul Xadiim gi nga xam ne nii ñoo ne ci gannaawam di nuyu ak sant bu baax xalifa dëkk bii di Sëriñ Ceerno ko ñaanal li ñaanal Seex Muhammadul Muntaxa waaye di nuyu mboolem autorités yi nga xam ne nii ñoom lañ fekk tàmbale ko ci maire ak préfet ak commandant ak ñi ñu àndal ñëpp ak président conseil départemental ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sargal di leen siyaare ci bis bi di nuyu tam waa daayira bi nga xam ne ni ñoom ñoo taxawal liggéey bu rëy bi di yëkkati kàddu nag ci turu sëriñ Omar ni ko sëriñ Baara mi waxe léegi nga xam ne jawriñ la ci kër sëriñ Omar te sëriñ Omar boola ñoog moom ñu ànd ñëw fii ñëwoon nañ fii at mii ma ko jiitu ñëwoon nañ ànd ak moom ren ñëwaat ànd ak moom suñu Omar boole ñoo ak moom boole ñoo ñeneen ñi nga xam tam suñu baara lim na leen léegi du jariñu ci dellu si muy suñ Murtala ak suñu Fàllu ngir ñu ñëw teewal ko ci bis bi sëriñ bi wax ne bu amoon la ko gënal moom ci boppam mooy ñëwal boppam ndax mbokk gi jaral na ko sàmm ndoonal itam jaral na ko ndax ku xam sëriñ Mbàkke Buso xam taxawaay bi nga xam moom la amoon ci biir bokk gi ci toppatoo gi ak sàmm gi ak fu ci mbokk nekk mu lay nemmiku di la wan boole ci boppam di la xëcc di la dugal ci boppam sëriñ Omar nee noonu ko sëriñ Mbàkke doon defe nag ak njabootam jaar ca ba liggéey bi ak si ci loxoom dafa fas yéene mu jëm kanam waaye fas yéene mukk di ko mujje dara di ci wàññi ku nekk xam ne sëriñ Mbàkke fi mu demoon bokk ga mboolem mbokk yi nga xam ne ni ñoom lokkoom ñoo ñoo bokkal bu soobe ñi ci ëpp fa moom lañ newoon ndax sëriñ seexu mi nga xam moo doon magam teel fee jóge mu mag ci njabootu mbusoo bi xëcc bokk yu baree bari ñu fekk su ko foofee ca gedde nga xam ne nii sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu moo ko fa dëloon waaye itam daan yittewoo mbokk yi tasaaroo ci biir Sénégal yëpp xam ngeen mbusoo bi gépp genn rek la ñoo bokk menn maam mi bokk menn cosaan ñii nekk Fuuta ñi nekk Bawol ñi nekk Saalum waaye benn famille benn njaboot rek la moo tax ku ci daan sonn la fañ cosaanoo ba niñ agsee fii lépp da koo bind bañ na ko sax ba ci suñu sant yi ñuy wax bu niñ koy bindee sax dañoy sonn lool dem na ba ne léeg gis koy bindee ba ak sadd waaye noonu loolu lu bees la nee na ba ak siin lañ koy bindee yaakaar naa ne koo xam bàyyiwoo sax sant wi def naa ne kon leneen du ma tax kon nag noonee taxawaay boobee sëñ Mbàkke amoon ci mbokk gi moo a sëriñ Omar ne fépp fu ak busoo bi nekk fas na koo yéenee nemmi ko dundalaat mbokk googee nii ñu ko defee fii noonu lañu ko defee dagana suñu bokk bu soobee nekk dagana bu ñu amee xew nii la sëñ bi def yabal délégation ñu dem teew ko ñoom it bis bu gëdee am dañuy yebal seen délégation ñoom it ñëw teew fa fii di Touba Mouride tam xëy na biñ fi tàmbalee ñu yàggul waaye ñu ngi ci gis yokk gu mat sëkk ndax bis yi nga xam la gëdee di am seen délégation day bàyyi ko fii ñëw teew fa loolu tam sëñ bi yëg na ko mu ngi koy rafetlu bu baax a baax a baax xamit ne mbokk gi suñu borom moo ñu digal ñu sàmm ndax loo xam yàlla nee na maa ko sàkk jëlee ko ci sama tur képp ku ko jokk ma jokk la képp ku ko dagg ma dagg la yaakaar naa ku nekk war ngaa moytu dagg-dagg sa digg ak sunu borom te képp koo xam yaa ngi sàggane seg bokk yaa ngi waral li dagg sa digg ak sunu borom moo tax sëriñ Omar nee na mi ngi leen di tàllal loxo nañ ko defe woon démb ak bërki démb tàllalaat na leen loxo ñu gën a dundalaat bokk gi ndax waxoon nañ ko fii benn jamono ne ay bokk bu ñu xamante tuumuranke mën naa jeex ci seen biir am na ñoo xam ne nga féete Ndakaaru ñi féete Touba ñi féete Saalum ñi féete Fuuta kon foo xam ne sa mbokk nga fa boo fa demee sa tuumuranke jeex na ba te defe naan toll nañ jamono joo xam ne nii réew yi sax léegi dañuy booloo kon nag waxuma la njaboot yi kon ñi nga xam ne nii ñoom lañ fekk si duñ si bokki bu soobe sëriñ bi nee na tàllal na leen loxo fas yéene ànd ak yéen seen yitte di yitteem seen mbégte seenu naqar di naqaram loolu la waxoon bu ñu ak seen jot leen ko di sant bu baax nag sëriñ Assane mii nga xam ne dox na ci jéego yu mag a mag wax dëgg yàlla ci dundalaat bokk gi xëy na tout tànk la moo tax ñu am ci yaakaar ndax su fekkonte ne ay mag yu sax bi jaaw kese ñoo ko dundalaat mën nañoo wax ne du yàgg ndax mag ku nekk xam ne ku dem mu dem ku demul mu dem waaye nag bu fekkee ne dafa tàmbale ñi nga xam ñoo gën a féete ndaw ci njaboot gi kon mën nañu am yaakaar bu baax ci ne mbokk gi fépp fu mu àggoon dana fa ak àggaat lépp lu ci maanaam taxawoon dañ ko yëkkatiwaat ba mu kawee njot kon ñu ngi koy ñaanal moo xale yi ne ci wetam ne ci ànd ak moom di ay magam ak i rakkam ñoom it sunu borom gën leen a dëgër gën leen a kàttanal ba liñ yéene liggéey ci biir njabootu mbusoobe ñoom it ñu mën koo liggéey ndax xam nañ seen ndono maam rek ci lañ nekk mbusoobe ku leen xam yaa ngi leen xam ci jàng ak jàngale yar ak liggéey ci diine ji defe naa liñ fi jégg sëriñ Gana wax ko defe naa ne doy na sëkk xam wàccuwaayu mbusoobe yi ci gannaaw sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu mooy taxawu ko ñaanal ko toppatoo gannaawam di dundalaat njaboot gi def ci liggéey bu mag a mag kooku nag defe naa ne du def loolu ba noppi di sàggane bokk kon daal ñoo ngi sant di gërëm bu baax a baax di ñaan yàgg fee ñëw yàgg leen fee fekk te liñ fi ñaan lépp suñu borom def ko di sant nag suñ gànna ci waxtaan bu baax a baax defe naa ne li laaj soññe ci murit gi suñ gànna def na ko defe li ma ta lépp wax na ko li matar ràññee lépp ràññee na ko xale yi itam defe naa ne yee na leen ci lu baree bari tey na ngeen bàyyi xel ci ne fu ne sëriñ bi def na fa jëwriñ bu kenn xeeb sa jëwriñ ku nekk sa jëwriñ boo toppee ci gannaawam jëwriñ jooju topp ci gannaaw jëwriñam jëwriñ jo topp ci gannaaw jëwriñ ba keroog mu yàgg sëriñ bi defe naa ne lool bu ko ñëpp defee dana yomb lool ndax sëriñ bi ni muy sos yoonu murit mooy néegu ñax ni mel forme boobu ma nga am nga xam ne nii lu mu gën a jëm ci kaw di di sew boo àggee ci kaw benn puj rek nga fay fekk néegu ñax benn puj lay am wala boog ñu lañ ci xam benn puj boobu nag mooy benn sëriñ moo am ci yoonu murit mooy sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu fépp fu mu sëpp njàngale mi nag noonu la ko fa sëppee mooy njaboot gépp dañuy nekk suuf am ay jëwriñ ba keroog ñu àgg ca kaw kilifa genn lay doon ci yoon wi kon njaboot gu nekk genn kilifa lañ am njaboot yi ànd am benn kilifa ba keroog ñu àgg sëñ Muntaxaa mi nga xam ne nii moo fi toog jataay sëriñ Tuubaa nekk kilifa ak murit yëpp kon loola la sëñ bi fàttali ñu fàttali ko ndaw ñi nga xam ñoo toll ci war a aw mag ñi ñu gën koo bàyyi xel waaye ñu gën a bàyyi xel tamit li si asan mii lay taayu waxtaan wi te mooy dellu ci njàng mi li siñ gànn wax lépp li ko mën a saafara mooy ndaw ñi jàng ba xam fi ñuy teg seen tànk jàng ba xam kan mooy Serigne Touba li mu doon digle ak li mu doon bañ ñu xam ko bu ko defee ku ñëw bëgg laa woon leneen nga xàmmee ko dana yomb ci yow lool kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm it délégation bi nga xam ñoom lañu àndal ñëw fi di ñaan it ñu ñëw fi at yu baree bari te saa yu ñëwee gis fi yokk wér ci zahir ak ci baatin di ñaanal sëriñ Omar tam sunu borom gën ko fee yàggal ba naal yim naal fas ko yéene liggéey ci biir njabootu mbusoo bi fas ko yéene liggéey ci yoonu sëriñ Tuubaa fas ko yéene liggéey ci lislaam bi sunu borom kàttanal ko ba mu mën koo joxe ba mu kawe njortam yàlla loolu yàlla mën na ko wa ma zalika ala llaahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf bu sabaali la nga ko mooy mat ndawam sëkk mat jëwrinam sëkk kenn ku ne xam na ni jàjjiwaat nga bokk gi boobu ba léegi nag activité bi nga xamante ni ñi ngi koy def at mu ne mooy ziyaare xalif général des mourides at mu jot dinañ ko def te ci loolu nag lañ bëgg a soññi mbokki taalibe yépp mbokki daayira yépp kenn ku nekk am na loo xam ne sasowoon nga ko ci bis boobu am na ñoo xam ne seeni sas teew na am na ñoo xam ne seeni sas teewagul ñu ngi soññ nag ñi nga xamante ne seen sas teewagul nañ gaaw a teewal seeni sas ngir ñu mën a waajal bis boobu ndax bis bi kat heure bu ne mën na yegg si ndax sëriñ Muntaxa mooy jàpp bis bi ñun dañuy toog rek mu woote ne samedi bii ñëw bu delsee wala bis sàngam bu delsee jàppal naa jàpp naa seen ziyaare bi kon su boobaa waaj rek dem la ñuy def looloo tax nag ñu bëgg lépp yemb ñëpp jekk nga xam ne sëñ bi su ñu wooyee ne bi sàngam laa leen jàppal rek ñu daal di dem kon loolu ñu ngi ciy soññ ñëpp di so di ci soññi mbokk taalibe murid yëpp ñëpp a ko bokk fu taalibe nekk nekk ci nekk nekk fii ci e, ci ci goox bi ci nga bokk sa àddiya na nga ñëw daaw nag. E, wii juróom-ñetti millions lañ yóbboon ren incha allah dañ ko bëgg a doubler muy fukki million ak juróom-benn ndax yoonu it amul tànku gannaaw tànku kanam la am. bi ñuy njëkk a dem deux cent mille lañ lañ lañ ziare yoon sëñ sëñ Sidi Mokhtar ñu dem ba daaw ñu yóbbu juróom-ñetti millions ren dañ ko bëgg a te incha allah dina am kon ñu ngi ciy soññ ñëpp kenn ku nekk na nga ci sa loxo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bu ko defee bañ a guddal rek ñu jox euh, sëriñ Ousmane Camara. Euh, mu wax li nga xam ne mooy taalif bi nga xam su ngeen ma dégloo ma wax leen li ngeen di seede mboorum Tuubaa murit lii de jar na seede xatum fukk ak ñett di bisub dibéer lañ ko sanc gannaaw ju nekk juróom-ñeenti téeméer ci ndégalub sëriñ Tuubaa mu jaar si sëriñ Bachiiru way jurub borom xeweli sëriñ Muntaxa Bachiiru sanc baa nga matee ci loxob xaalijee moog mbokkam ya mamat ak saangayeen jee xaale boole gor ak yet ak taal lii de borom ñooro seede na ko alasan taal maam xaali delluwaat na gannaaw matum sanc ma yebal njaboot ga dellu dundali sanc ma ña ko doon xeex doon defar luuma ki mbaar seen pex ya nërmeelu na lii de doy na waar ndax taal bu yàlla taal ku ko nar a faar danga fa doxee faaru ku weddi neen dam faar Kaolack pësi Banjul ba njaay njaay ñépp a daali jëmali luuma ba ku nekk di jaay xale yi sa fit waak ngor mag ñi si diine ndax cosaan nga moo di école ba nasru diine Fatick Sokone ba Kaarang frontière moo fii lycée araab buñ fi reconnaître Touba Mouride dëkku bànneex ak xéewal ku weddi laajal suñ sëriñ ba demoon jéewal Kaolack Fatick Farafañe ba Banjul ku dëkk Touba Mouride nangoo liggéey doo fa ndóol ak poxam caaxaan nag duñ ca am ndam ndax dëkkub sëriñ Touba ak lahu du fa am Touba morit comme jantub diggu njolloor saa yu fenkee biddiw weer wa réer sa jiloor fukki xalifa ñoo fa jaar ku di laajal mbay ak mataar commencé ko sa maam haalijee 1913 ba sa maam cor na ma toog si jal bi xalifa ba da maam mamat jee ñetteel xalifa ba da saa ngayeen jee biraan sira bu sa moo leen ñetteel 1918 ba 1922 si mbégteel keleen juróomeel de maam Abdou Ceebo 1922 xewal gay baawaan ba kër Ceebo juróom juróom benneel ba de maam seet faana buso moo boole woon mbokk ya da ñaw comme puso juróom ñaareel ba mooy maam dokk ma damoon 14 18 ba woon jàpp noonu yey faat tubaab ak naar ñépp ko xam saalu bawol ba gànnaar moo téye dëkk bi fanweeri at ak juróom ku weddi wax ji laajal boroom xel ko mbaa juróom laajal buur ba forcé woon nit ñi ji seeni saax maam doog ko ne woon na ko tukkal gan tabax bay faax jamono boobu buur du wax kenn ci teg baat ku ko def buur ba dalay faat ku ko def buur ba dalay denc mbaa mu faat maam doog ko dong mooy ku ñemoon a taxaw buur ba wax mu mu teggi waxam teg fay wax maam doog ko liggéeyam wax ko du ko jaaxal sa xam-xam baag jëfin ba tàngoo nit ba mel ni xal juróom-ñaareel ba bu so moo def si dëkk bi 36 si ay at xéwal gay baawaan 70 ba 2006 mu teg tànkam fa ko bàyyam maam doo ko tegoon ñàkk caaxaan boole koo liggéey suba ngoon moo yaatal dëkk bi gan ñi di jóge fu ne ñii di jaay ñii di tabax ñii di wut fu nu ne bu xel ko mosaana woote ñépp riitali wutali këram muy joxe woote yàgg joxe paase boole koo joxi dërëm juróom ñetteel juróom-ñeenteel ba da maam seet xadi fukkeel ba da maam cor na fëri sunu maam yi yal na yàlla yokk seeni leer te taas ñu si seeni barke may ñu xewal musal ñu si nger yal na yàlla woyofal yal na yàlla woyofal seen yal na yàlla woyofal suuf si seeni kaw may leen tiraanga ju sax si ba faw jërëjëf sëñ Ousmane asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di yëkkati suñu kàddu ci turu xalifa Touba Mouride El Hadji Thierno Bousso ak population Touba Mouride yépp ñu ngi jiital ci ñi yóbbi suñu sëriñ sëriñ seex ibnu sëriñ Bass Mbàkke mi nga xam ne moo fi teewal sëriñ Fàllu Mbàkke ibnu sëriñ Abdou Akim Mbàkke sëriñ seex ñu ngi lay dalal ci bis bi di la teeru di dalal encore sëñ Modou sëñ Modou Mbacké e, mu sëñ Bas moo fi teewal Cheikh Mouhamadul Buntaxa tey ndax sëñ Fallou moo fi daan teew waaye moom la yebal kon ñu ngi lay xoolee ti xalifa général kon sëñ Modou ñu ngi lay dalal ak jàmm ci bis bii e, ñu ngi continuer encore di dalal autorités yi nga xam ne teew nañu fii te kii leen jiitee de monsieur le maire de commune muy Mamadou Faye ñu ngi lay dalal di dalal encore euh, monsieur le maire député maire Pape Seydou di dalal encore monsieur le sous yéen ñooñu yéen a jiite délégation bi nga xam ne ñoo ñëw fii kon ñu ngi leen di dalal ci bés bi di leen wax ne seen bés la yéen ak ñi ngi ànd ñi ngeen àndal ñépp euh, monsieur le maire dara commune euh, c'est la fois nga teewee cérémonie bi yàlla def nga yor kasket bi nga yor tey kon ñu ngi lay dalal fii ci commune bi te dina ñaanal yàlla mu may la kàttan ba mébét yi nga am ci commune bi yàlla defal na ko euh, ñu ngi nuyu encore di dalal yeneen ñi nga xam ne ay candidat lañ woon ci élection yi passé ku mel ni ba Cissé mu ngi fii moom itam ànd ak délégation moom it ñu ngi koy dalal ñu ngi dalal encore Souley Ba moom it ànd na ak délégation ñoom it ñu ngi koy dalal mais ñu ngi dalal encore commandant brigade gendarmerie bu Sokone ndax yebal na fi ay ndaw depuis ca suba ba léegi ñoog ñoom ñu ngi bokk liggéey bi ñoom it gis nañ taxawaay bi ñu am ci liggéey bi kon yéen ñëpp ñu ngi leen di dalal ci bés bi. Euh, bés bi nag doon bés boo xam ne euh, at mu jot dañ koy amal waaye du ñàkk mukk ñu sant ki nga xam ne mooy sous cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu jëm ndax gis nañ taxawaay bu mu am ci bis bi te amul benn at boo xam ne mos na ko uute at mu jot dafay dagg yitteem ñëw teeweel ko boppam mënoon na di yebal ndawam waaye loolu dafay wane rek yitteel bu ko bis bi yitteel kon monsieur le sous-préfet ñu ngi lay sant bu baax ci loolu di la gërëm di xam ne dëkk bi gis nañ sa taxawaay ah, yëg nañ ko bu baax ñu ngi nuyu encore Moustapha Mbaye yebal na fi moom itam euh, délégation Issa Ba moo ko jiitee moom itam mu ngi fii xam naa dafa am empêchement waaye moom it am na lu mu fi yónnee woon ca fan yële ca gannaaw ngir participer ko ci bis bi kon moom it ñu ngi koy dalal bu baax ñu ngi dalal collectif pour la défense de intérêts de la commune ñoom it ñu ngi fii ñoom it am na ñu ñu fi yebal pour ñu teewee ci bis bi ñu ngi dalal encore jawrin fédération Naylul Maram moom moo wax léegi ñoom it ñu ngi leen di dalal ci bis bi euh, olof Njaay dafa wax ne ku lim jiw waaye gis nañ ñëpp dalal nañ ñëpp kon li ci des rek mooy am na ay bëgg-bëgg yoo xam ne dëkk bi bëgg nañ ko kooku nag faw ñu yeggee leen ko yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk te teewal fi gouvernement bi ndax kat jotaay bi mën nañu wax ne euh, gouvernement bu région bu Fatick parce que ñëpp teew nañ ndax député maire bu fi teewee su préfet teew fi ak yeneen i maire Euh, vraiment mën nañu wax ne département bi teew nañ euh, Touba Mouride nag euh, dëkk la boo xam ne comme ni ko ki doon taalif léegi waxee joxuñu sëriñ Touba la Serigne Touba moo joxe ndigalu sanc dëkk bii te jaarale ko ci taalibeem bi ñuy wax Ali Dieye Bousso mu ñëw ci ndigalu sëriñ Touba sanc Touba Mouride Ali bu Bousso bi mu ñëwee mu ngi jaar Nioro Alassane Tall ci ki ñu wax Alassane Tall foofu la jaar pour ànd ak moom ca àll bi mu wëral ko foo xam ne dana man pénc waaye bi Aly Dieng bu sa wëree ba gis benn wen bu nekk fii ci la gis wen googu ak ay mandargaam mu ne wax Alassane Tall na ko Alassane Tall fii de yaakaar naa mën na pénc ah Alassane Tall na ko yow kat Aly da nga ma doon warloo pénc waaye yaakaar naa ne yaa ma gën a xam pénc ca waxtaan yooyu ñu doon waxtaan ca la am benn lettre bu waddu seen diggante lettre ba bi mu waddee Aly Dieng bu sa for ko bi ma ko foree bi ma ko liiree ñetti baat lañ ca bind baat yooyu mooy lan ali foofu la ali foofu la ali foofu la ba muy ñetti yoon boobu la fàkk foofu mu war a doon péncam Touba Mouride kon dëkk bi joxuñu Serigne Touba la lépp lu ñu waaye def contribu def nga sa contribution ci liggéeyu Serigne Touba loolu rek lañu doon leeral ci cosaanu dëkk bi euh, leneen li ci des mooy dëkk bi dafa doon dëkk boo xam ne euh, pôle économique la ndax Euh, mën nañoo wax ne population bi nekk ñombaato yëpp dañ fiy ñëw di daan seen doole ndax dafa am marché hebdomadaire bu fi nekk boo xam ne mën nañu wax ne ñëpp dañ fiy ñëw di daan seen doole di liggéey di yóbbu seen kër yi waaye dañoo am problème muy problème mu yoon dëkk bi dafa am problème mu yoon mën nañu wax ne lépp lu askan wi di dundee fii lay ñëw ci dëkk bi ñu ko fiy jënd di ko yóbbu ci dëkk yi mais pour mu ñëw ci dëkk bi dafay poser problème kon yéen ñi nga xam ne yéen ay autorités yi ñu ngi leen di dénk loolu di leen ko dénkaat di continuer di leen ko dénk te duñ leen ko mos a jàkk dénk Touba Mouride dañu bëgg mu am yoon boo xam ne dafay ñuul kuk nit ñi ku bëgg a dem dem ku bëgg a ñëw ñëw sunu gox bii nag loolu dafee manqué fii moom dafay manqué lool lool lool vraiment yoon moom dañ ko manqué nawet pour ñu génn dañuy am problème kon bëgg nañ ngeen am ci taxawaay bu mat sëkk boo xamante ne nii danañ fexe ba fii am yoon yoo xam ne askan wi danañ mën a dem waaye danañ mën a ñëw leneen li ci des mooy dëkk bi encore euh, am na courant mais am na kër yoo xam ne ba léegi joteeguñ ci courant bi loolu ba léegi ñu ngi leen koy tawatal monsieur le maire soxla nañ loolu ba nga xam ne dëkk yi ci des yëpp danañ ma kër yi ci des danañ mën a am courant loolu chef di village am na loo xam ne laal na ko soxla nañ encore ndox mu neex commune bu Nioro Alassane Tall liñ fi bënn ci ay forage ci ndox mu neex kenn xamul nu mu toll waaye forage yëpp mu ngi servir yeneen commune mais population bi jotaguñu ci population bi ñu ngi tawat loolu nee nañ bëgg nañ forage yi ñuy bënn ci seen commune ndox moomu ñu mën ci bénéficier wu ndax ndox mu neex moomu ñu koy jox yeneen i commune te ñoo mënuñ cee am loolu ñu ngi koy tawatal autorité yi loolu bëgg nañ ngeen taxaw ci ba ndox moomu ñun ñu mën cee bénéficier wu comme suñu commune ci lañ ko bënn loolu vraiment bëgg nañ ko bu baax a baax rax ci dolli encore ci wàllu wérgu gu yaram am nañ problème pharmacie ci suñu gox bi ndax population bi yëpp ànd nañ joytu loolu fii moo amoon benn dépôt pharmacien boo xam ne ku ñu bind laan garab ci hôpital yi fi nekk da ngay ñëw fii jënd si sa garab ñibbi sa kër mais léegi bu ñu la bindalee ordonnance tant que demuloo sookoon doo mun a jënd garab googu te loolu bëgg nañ autorités yi fexe ba dépôt boobu nga xam ne amoon na fi doon satisfaire ànd askan wi ñu fexe dépôt boobu ñu mën ko ubbiwaat ba nga xam ne askan wi dañ ci mën a bénéficier wu am na ordonnance yoo xam ne urgent lay doon pour nga jógee fi war a dem ba sookoon war nga de war a dem ba Saalum Diané pour jëndi garab loolu vraiment métti na ci population bi kon monsieur le maire ñu ngi lay dénk doléance boobu yow ak monsieur le sous-préfet ngeen dox ci ay tànk ba nga xam ne loolu dana mën a amaat ba nga xam ne population bi danañ mën a jot ci loolu euh, leneen li ci des mooy euh, Touba Mouride am na benn association Touba Mouride ci kanam boo xam ne ndaw yi Touba Mouride yëpp ñoo ci bokk lépp loo xam ne mënal nañ ko seen bopp dañ koy def duñ ci xaar kenn duñ ci xaar ma sàmba duñu ci xaar ma demba ndax nag loolu lañ nàmpee ci suñu sëriñ muy sëriñ Touba ndax bi muy liggéey jumaa yi njaarim dafa wowoon mag ñi ñu ñëw mën a leen kenn ku nekk na indi ñetti dërëm ñu ko cotisé ñetti dërëm ñetti dërëm yi indi jox ko mu ne dama leen di jàngal lii li tax ma laaj leen ko mooy lépp lu ngeen bëggati nañ leen ca fekk waaye bu leen ca xaar kenn loolu ca ndaw yi Touba Mouride nekk tey lépp luñ bëgg tax seen doole man ko seen kàttan man ko loolu moom ñu ngi ko ca xaaruñ ci kenn kon nag bëgg nañ ngeen xam ne taxawaay boobu lañ am bu mat sëkk lañ am yàgg nañoo gis Touba Mouride ñuy defar ay yoon ci seen seeni doole loolu ku dëkk ci tund wi xam nga ko bépp entrée boo xam ne dugg na ci dëkk bi amul benn entrée boo xam ne nii baax na lépp ay pax la bu nawetee dañu takk suñuy ndigg jël suñuy ngoos yi suñuy daaba suñuy matériel suñuy peel suñu pikk dem ci yoon yi di suuli ay pax loolu ñëpp seede nañ ko kon bëgg nañ ngeen fekk ñu ci loolu jàppale ñu ci loolu ba nga xam ne dëkk bi danaa mën a am ay yoon yu mucc ab yoo xam ne ku bëgg a dugg di nga dugg ku bëgg génn encore di nga génn encore pont bi nga xam ne moo nekk suñu diggante ak Nioro dafay indi jéey yu bari jamonoy nawet ay oto ñu ngi fiy daanu ay nit ñi ñu ngi fi de ay accident ndox bi su baree nit ñu dem di ñëw kooku itam bëgg nañ ngeen jàppalañ ci ba nga xam ne dañ ko mën a réaliser ba nit ñi mën a dem wala ñu mën a ñëw. Euh, li ñu des nag mooy Touba Modi ci kanam boobu ma wax dafa am benn projet boo xam ne moo nekk ci seen kanam tey muy jumaa wu dëkk bii xale yi taxaw nañ ne jumaa ji dañ koy defaraat dañ koy changer bi ñu ko defee rek léegi dafa yàgg. waaye ñoom jël nañ seen engagement ne dañ koy changé loolu nag dañ ciy tàllal loxo bépp jullit rawatina autorité yi nga xam ne ñu ngi teew fii parce que ne nañ bu événement bi passé dañuy jublu ci liggéeyu jumaa ji kook nag ñu ngi ciy tàllal jullit yëpp monsieur le maire ñu ngi la ciy tàllal loxo monsieur le député maire ñu ngi la ciy tàllal loxo monsieur le sous-préfet Ishaba représentant euh, président conseil département ñu ngi leen di tàllal loxo ci liggéey boobu nga xam ne parce que ne nañ incha allah birig yi pare nañ bu paree rek dañuy jublu ci liggéey boobu nga xam ne dañ koy liggéey ba yàlla def mu mucc ayib euh, kon vraiment ci gàttal li ci des yëpp borom dëkku yeggale na ko. waaw léegi nag loolu moo doon doléance yi nga xamante ne ni daanaka moo gën a am solo euh, tubaab Mouride nag euh, vraiment am nañ benn daara moderne bu nekk fii ci kër Serigne Touba gi ñoom it xale yaa ngi fa di jàng te loolu mooy li Serigne Touba santaane woon dëkkam vraiment lim santaane mooy nañ jàng nañ liggéey. ñu ngi jàng alxuraan macha allah vraiment wax dëgg yàlla xale yi ñu ngi am résultat yu baax a baax kooku itam bëgg nañ ci ku ñu ci jàppale. ndax daara bi actuellement lu mat quatre-vingt-dix taalibe ñu ngi fa te fii ma toll tey mën na la wax ni am na trente yoo xam ne wàcce nañu alxuraan te ñu ngi jàng xam-xam te di 2006 lañ ko formé ak léegi. kon yaakaar naa ne 2016 euh, ak léegi kon yaakaar naa ne loolu vraiment mu ngi dox bu baax loolu mooy wara ne Touba Mouride lépp loo fii loo fi sumb ci loo xam ne ni mbiru diina la yàlla daf ci def taw tawféexam ndax loolu la Serigne Touba ñaan ci dëkkam yépp ñu xam ne ci dëkk Serigne Touba yi la bokk kon ñu ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di balu àq wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëñ Babacar euh, wax ji am na solo lool daana lépp li nga xam ne dafa jëm si jafe-jafe dëkk bi euh, passé nga ko en revue maanaam leeral nga ko. ba ñëpp xam ne dëkk bi dëkk bu am solo la ci commune bi. te yaakaar naa li ngay wax duggal ci nopp dox ndax commandement territorial mu ngi fi muy le préfet de Toubacouta ak député bi l'honorable député ñu ngi fi ak président conseil départemental ak sun l'honorable maire de Nioro Alassane Tall monsieur monsieur Faye kon loolu yaakaar naa ñoom ñëpp mën nañu porter la plaidoirie ci au niveau central jërë jëf.